waaw tey ñu woote woon benn euh, ndaje pour waxtaan ci mariage d'enfants euh, informer sensibiliser surtout suñu xale yu jigéen yi ak parents yi population bi yëpp ku xamal leen que ni mariage d'enfants dafa xew ci àdduna bi surtout au niveau du Sénégal ni ma ko waxee sànq dama ne mariage dafa nekk loo xam ne euh, constitution du Sénégal, code de la famille, droit islamique, DEFCO, affirmé, DEFCO, consacré. Nous avons fixé âge mariage, certains textes 18 euh, ans, droit islamique 16 ans. Wante li ñu sétlu nak moy que ni dafa bari ay mariage yo xamni ni dañ koy def to xalé bu jigen bi wala xalé bu goor bi du am 18 ans wala du am 16 ans lool lañuy tuddé donc mariage d'enfant mais surtout mariage d'enfant nak l'âge en tout cas pour ce qui est des textes législatifs et réglementaires au Sénégal c'est 18 ans mariage yu bari dañ koy def to xalé bi du am 18 ans loolu nak day am ay njeexintal yu garaaw ci xalé bu góor bi comme bu jigen bi ak febar yu bari lu ci melni par exemple fistule yoy mo koy andi tey nak ñu ñëwoon pour waxtaan ak euh, askan wi xalé yi parents d'élèves yi ñu xam que ni phénomène bi amna. et que également dañu war a conséquences yi aussi am na yani solution nag la ñuy teg pour que phénomène bi wàññeeku bu baax a baax fii ci Sénégal rawatina fii ci département bu kafrin waaw bu ndaje bi jeexee nag yaakaar naa que ni soppeeku dana am puisque euh, li ci am solo mooy képp ku participer ci atelier bi. am information bi xam lan moy mariage d'enfant lan moy euh, conséquences euh, ak tamit lan la wara def vraiment pour que euh, phénomène bi arrêté wo je pense que ni ku chaque participant bu amé information bi tas ko ci askan communauté bi yaakaar naa de dana information bi dana daj ñep de telle sorte que maintenant chacun maintenant va prendre en tout cas ses responsabilités pour euh, éradiquer en tout cas ce eh, problème. Merci. waaw tay bu SOS ñëwé and ak chaos pé organiser activité bi c'est parce que dafa am lu leen boole mooy le CDP de Kaffrine CDP bi bo xolé mo ñu bolé ñu ñëpp en tant que des membres donc si lolu ñu andando ak eh, si ndimbalu préfet organiser ben atelier bi ñu dogam ñëw eh, pour élaborer ben plan de plaidoyer bo xam ci biñ ko élaborer ñu génné ci quatre thématiques quatre thématiques yi ñu si génnee nag boo xoolee mariage d'enfants yi da ci bokk mu nekk loo xam si lu fës la ci département bi ndax boo xoolee à chaque fois ñi nga am ay cas yu ñuy signalé muy jaar ci CDP bi di jaar acteurs yi pour ñu koy en charge amuñu chiffres yi nag waaye mën nañu wax en moyenne euh, chaque semaine parce que wala chaque mois ñu am benn cas soit de viol suivi de grossesse parfois conséquences yi muy nekk mariage après. léegi plaidoyer bi ñu ci def rek mooy ñu lancer waat appel autorités yi surtout moo xam les autorités administratives moi xam les autorités territoriales voilà wala autorités éducatives pour ñu jël si jéem a jooyante loolu jël si ay mesures surtout au niveau des mairies parce que boo xoolee mariage bu amee am na ay cas de mariage une ñu délivré mais ñu veillé ci surtout âge mariage mais aussi de lancer appel imam euh, chef religieux yi nga xam si nous tamit ñoom ñooy sele mariage pour ñu bàyyi xel préfet wax nag léegi ci kàddoom ñu xam ne mariage tamit amener na lu ko établir mooy constitution yi code euh, sénégalais. Euh, de la famille mo xam dispositif euh, légal yi jël yépp euh, da ko encadré merci beaucoup bu ma waxee maria bu ma waxee ne ma mariage dañ koy bañ ma ne waaw waaye grossesse précoce nag moom kon bañu leen ko xana ma foog ne loolu lañ war a gën a bañ te dëgg la am na ñuy maye seen doom ci lu ji lu manqué at yi nga xam ne moom la nguur gi tëral waaye itam am na xale yoo xam ne ñoom ñooy ëmbal seen bopp te fekk na duñu ko sax jege defee yooyu nag ma yaakaar ne eh, xale bi nga xam ne moom ah, manta téye boppam ñun teeroon ko maye nga xam ne la muy ëmb dana nekk tegu ci yoon yoon wu lislaam gërëm moo doon gën donte la nag wedduwuñ li eh, préfet wax léegi ne bu dee ci lu lislaam fukki juróom-benn la boobu sax tane na euh, bu dee ci constitution bi nag mu ngi ko def ci euh, fukki at juróom-ñett dëgg la nag ñun de wax dëgg yàlla yàlla natoo gudd ñu njaboot yi ñu mayeegum yëpp amul ci ku ci amul fukki juróom-ñett loolu moom yàlla ngi ci dimbale euh, juyooguñ ci ak tëralin bi nga xam ne moom la ko réew mi tëral waaye duñu balaame nag ki nga xam ne dafa maye domam ci lu yes loolu ngir ñong bëgg mu ñong rek bañ mu def lu naqar yalla kon ñaar ñoo ñepp damay japp ne ñi ngi ci yoon comme ni mako waxe legi yalla ngi ci ciy ko ñun eh, guñ ci lu wuté ak ni nga xamni ne la ko réew mi amna njabot yi maye waye kenn kuñ ci maye rek am na fukkaar ak juróom benn jëm fukkaar ak juroom ñett sax eh, loolu mom yalla ngi ci dimbale léeg-léeg nag ñi nga xam ne ci jàkka yi dañuy maye eh, xanaa ñu waxtaan ceeg ñoom ci eh, suñu eh, xutba yi waaye kii ñëw de maye doomam yow doo gis sa xale bi doo xam ñaata at la am yooyu bu ko xam nga imaam moom dañ ne moo maye waaye imaam mayewut waaye jur ba moo mayee doomam imaam kay xëy na daf ko seede rek dañ ko defee si fii moom mu fekke ko waaye mayut doom kenn kon loolu itam mën na di bàyyi xel xanaa ñun ñi yee leen ci rek ci ne day réew mi de nii la tëralee nañ jéem a sàmm sàmmante ak moom loolu day mën nañ ko waaye eh, amuñ ci sulta ci eh, forcé kenn bu may doomam wala ci nii walla ci naa ndaxit it ki ñëw di bañ lu bon ba tax mu ñëw ne day may doomam ñun dañu yàkkamti sax mu maye ngir ga rek ñoŋal xale bi ba xale bi doo jàdd du def lu mu naqar yàlla boobu ñun moo ñu ciy gën a intéressé li nga xam ne danañ koy gëstu daal mooy ñaari tomb moom lu mu gàtt gàtt danañ ko gëstu moo di ki ñuy maye ndax ku ñu war a maye la wala déet te moo di àndut ak dara ak euh, alali jàmbur new ci yooyu yëpp danañ koy gëstu moom ka ñuy mayit ndax ku ñu war a may soxna la wala déet parce que ñun Eh, ku xam ñeenti jabar bëgg juróomeel ñun duñ ko takk ci suñ jàkk yi yu mel noonu danañ koy gëstu moom ak nag can ga bu bëggee xiis li nga xam ne mooy ruboxo di naarit foofu danañ fi intervenir wax ne na na na nañ ko yokk ba mat nangam yu mel noonu daal moom danañ ci faral di dugal suñ kàddu di ci des nag mooy comme plaidoyer bi lim laaj moo di ñi jàngee fi buñ fi jógee dem yee ko yeete ci eh, jàddale ko ci xeet wi loolu moom bu neexee yàlla mën nañ koy def bu soobee yàlla ci dugal ko ci suñu bayaan yi nga xam ne dañu koy faral di def ci jàkk yi ndax dara nekku ci waaw